jaa ngeen jëf mbokk internet yu bàyyi xel Info 7 TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su rek xibaar bi nga xam ne jaaroon na fi ci suba euh, muy suñu mbokkum sénégalais moo xam ne ab safoor la nekk foofu fi la ngi ñuy tibbee carrière ba ci Daaru Xudoos moom sénégalais boobu léegi naa bi nga xam ni amoon na ay coow yu doxoon ci digganteem ak ñim doon liggéeyal seen waa yooyu la foofu ca carrière ba tax nag bi weer bi dee ñu waroon koo fay ca fay googu la nag ci lañ amewoon ay jafe-jafe jox ma sama xaalis bi wala nga signé taxoon nag ñu tegoon ko lu metti foofule ba vidéo bi jamono yi mi ngi war tour du monde ñëpp askanu Sénégal doon ñaawlu vidéo boobu bile ginnaaw ba nga xam ne jaaroon na ci info 7 TV ñi nga xam ne nag ñooy takk dere jot ci. ba sax dem ca barab boo bile ñaari sinwaay yi nga xam ne moom ngeen doon seen ci image bi jamono yi ci xibaar yi ñu mujj a jot mooy teg nañ leen loxo jamono yi gendarmerie ñëw na fa ba jël na leen yóbbu am na nag euh, lu ci jaaxal ñu bari ndaxte ñaari sinwaay yooyu le am na benn sénégalais bu ci nekk sénégalais boo bile nee nañ ma nga dëkk foofu le moom sénégalais boobi bi nag gis nañ taxawaayam mu nekk taxawaay boo xam ne kenn ci sénégal sénégalais rafetlu ko ndax sa mbokkum sénégalais ñu koy fitnaal nga cee ànd loolu nekkut loo xam ne lu rafet la waaye lu ci man di xew ñu ngi félicité bu baax a baax autorité yi ndax ban ci jotee rek daal nañ ciy jog daar daar ba leen mujj a jot ci ay xibaar ñaari sinwaa yooyu yi la jamono yi ñu ngi ci loxoy yoon Info 7 TV mi ngi leen koy toppal incha allah dinañ ci ñëwaat jaa ngeen jëf fii leen di ànd ak ñun di abonné laal cloche di notification bi su ko defee lépp luy ay xibaar yu leer wir wur gaaw ñu leen koy wàcceel ngeen di bokk ci ñi koy njëkk a jot